conseil constitutionnel wane na yoon bi nee na ñi nga xamante ñoo séq langue élection nañu toog jàpp dat ndax moom conseil constitutionnel du moom moo war a jàpp date élection loolu aussi naka nit ñi gën a leeral ñi ko séq nag ñenn lañ mooy benn mooy le Sénat ñaar ministère de l'intérieur ndax lépp luy logistique élection ministère de l'intérieur moo ko yore mooy force de défence et de sécurité waaye nag mooy conseil constitutionnel ak ñi nga xamante ni ñooy les candidats yi mu retenir oon nit ñi ñoo war a dem élection donc ñooñu jàpp nañ ni dans fii suba wala fii ginnaaw suba le conseil le le ministère de l'intérieur ni war na mën a convoquer acteur yooyu yëpp ñu toog daal ni comme que ñàkk nañ fukki fan ak benn wala fukki fan ak ñaar ci campagne bi nañ ko yokk rek ci ci calendrier bi su ko defee ñu jàpp fii ak euh, peut-être le 10 euh, mars. pourquoi pas wala boog ba ci diggante boobu premier deux deux semaines yu mars yu jiitu yi ñu jàpp ci datu élection yi bu ko defee Sénégal dalaat nekkaat ci dal